Gele bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV Ladoum TV Mooy télé bi bégal sama askan waaw ñoo ngi ci box numéro 9 taxaw ak un très grand champion dem nañu dëkk ba fekk ko fa Kébémer dem nañu Louga fekk ko fa mu def sélection bu teng Louga tey ñu ñëw fii ci Tivaouane fekkaat ko fi mu def sélection encore bu teng ñu bàyyi ko mu nuyoog laa Ladoum TV ñu gis ko mu téy benn maal bu rafet maal bi nga xamante ni si axlu élevage ñëpp xam nañ fi mu bokk tubaar fakkaal la nga présenté ñu waat maal bi rek waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay ñoo ñëwoon fii tay si Tivaouane di nuyu waa ñëpp daal bàyyiwun kenn daal ñëwoon fii si Tivaouane daal exposé waaw tubaar fa gannaaw bi ñu la gisee nga nuyoo ba par nag nga présenté ñu maal bi encore ak lu élevage yëpp xam kii mooy kat ak mi ngi toll si ñaata mois waa kii mooy Omar Ndiamanka di doomi bes day bés day di doomu Gararaan mu ngi si 27 mois tubaar fakàlla kii la xam nañ koy Beuz Seye Beuz Seye kuy sa baay ñu ne Grand Rane kooku doy na tey jii Beuz Seye xoolal lii mu def tubaar fakkaala mu nekk suñu benn xarit suñu benn partenaire tubaar fakkaala ala mbub di def càmm à distance nag booy bi teel ko xar yi tubaar fakkaala téye bu am solo téye bu rafet macha allah tey boo xoolee Omar Ndiobane ni mu mel tey nga xam ni teg nañ ko loxo kan moo ko jox Omar Ndiobane nag ki ko juddule mooy kan Ndiassé Beuzé from Kébémer borom mercenaire bi ci ruq bi subaar fakkaal la tey boo xoolee Beuzé ci 24 mois ah nga xam ni axlu élevage ku yokkul da ngaa wàññi tey kii fan nga gis ne war na fa yóbbu seen élevage. waa kii am nañ si yaakaar am nañ si confiance lim wane lim lim ñu jox it gis nañ ko bu baax a baax ndax daanaka lu génn nit ñi taxaw loolu nag am na amees na si yaakaar lu bari si xam naa liy ñëw nag yaakaar naa mooy man fi mu ne nii ndax yi ma bàyyi kër ga macha allah. tubaar fakkaal la nee na li mu bàyyi kër ga. moo gën a teg gën a sévère li mu nga xam ne moo nekk fii. ji Omar euh, Ndiobane macha allah commencé na def production ax lu élevage gis nañ ko. tey war nañ nga ñu wanaat fii ndax indi ngeen fi ay doomam wala indi leen fi ay doomam bu fekkee indi ngeen fi ay doomam nga war ñu ay doomam. waa fii nag indi nañ fi ay doomam. taaw bi moo nekk nii. ah macha allah téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo ngeen xam ne Omar Ndiobane xool leen li mu def ci ci taawam tey xool leen li mu def ngeen xam ni élevage ko yokkul da waañi kon sama waa ji Ala Mbuub ah, yaa ngi liggéey liggéey bu extraordinaire ba tey rek nga présenté ñu beneen doomu Omar Ndiobane. ah macha allah macha allah. yii nii doomu Omar la doomu Omar bi moom it mu ngi toll 7 mois. tubaar fakalla ah téléspectateur Ladoum TV xool leen Omar Ndiobane lu mu indi fii xool leen Omar Ndiobane li mu def macha allah ngeen xam ni liggéey na liggéey bu extraordinaire ngeen xam ne ak élevage bàyyi leen xel kii bàyyi leen xel kii bu baax a baax a baax a baax ngeen xam ne macha allah élevage daal ku yokkul da ngaa wàññi. ba tey gis nañ fi beneen beneen añel nag añel boobu faaw nga présenté ñu ko añel boobu faaw nga présenté ñu ko ah téléspectateur Ladoum TV. xool leen xool leen Alé Mboup li muy liggéeyati xool leen Alé Mboup li mu ti jële na Omar Diobane fële ca bergerie bi nga xamante ni si foofu la Beuzey nekkoon waaw tey jii mu indi ñu dugal fa beneen maal muy mercenaire mercenaire liggéey fa liggéey bu extra tey jii Omar tey jii kii kii doomu doomu doomu mercenaire la tey jii ale Mboup jëlaat ko indi ko fii ci bergerie bi ñu fas yéene koo jox nag ki nga xamante ni si mooy Omar Diobane ak lu élevage xool leen Aly Mboup mu liggéey ñaar nii bu leen boolee égal bi moom la yéen laa koy laaj ah laa Ladoum TV égal bi si ñoom ñaar nii yen laa koy laaj ah nga fàttali ñu bergerie bi fan la nekk ak seen numéro téléphone. bergerie bi KMR dëkk bu ñuy wax Mbakari Mbuubeen numéro bi 70 la 316 85 31 mooy numéro téléphone bi. jërë ngeen jëf laa Ladoum TV jërëjëf. baby, bigger to my husband.